أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا محمد المكين وعلى آله وأصحابه أجمعين إخوة الإيمان والإسلام والإحسان والإرادة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokki M-Media Group nuuru daare ni ñu ngi sant yàlla subhanahu wa taala di julli ci yonentem boobu sallallahu alayhi wa sallama di leen ziyaare di leen dokkeel di leen baal xaq di ñaan ngeen baal ñu àq di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu jéggal ñu suñu rëcc-rëcc te nangu ñu suñu jaamu yàlla di nuyu mbokk yépp nag di leen ziyaare di jël néew boobu rek ak ziar booy di ko teg ci loxol kilifa gi ak Cheikh Abdul Ahad Mbakke ñoo ngi koy ziar bu baax a baax di ko ñaanal di sàkku ci moom rek mu jot li ñu néew bi ak ziar bi mboole mbokk yi nga xam ne yii ñoom lañu bokkal liggéey bu sell bii nga xam ne bii moom lañu yàlla baaxee ñu dellusiwaat rek ak yéen ci liggéey bi comme ni ñu ko baaxoo ci kattan ak yàlla ak ndimbalam ak tawfiixam yàlla na yàlla loola defal tawfiix fajal ñu suñu aajo saahiran baatina bi jaay sayna muhammad sallallahu alayhi wa sallam te dolli noo jàpp ci liggéey bi jàppale ci liggéey bi ba nu am ci lu kawe suñu yort te mu doon suñu njëriñal adduna ak alaxira barke Cheikh Xadim kon suñu jataayu fatwa bi tey dañu koy tàmbale ci laajab soxna si sunu yaay Satu Jóob ñaxat ñoo ngi koy ziar bu baax a baax di ko ndokkeel di ko ñaanal yàlla mu yàgg ci suñu kanam bu baax a baax a baax ci bëggam lu baax ak yittewoo liggéey bi def ci yitteem lool ñoo ngi koy ziar bu baax a baax tey soxna si muy soxna Satu Jóob dafay laaj ma xukmu salaati nisaai fil masjidi ma rijaal dafay laaj moom soxna si ne ñoom day dañuy dem di julli ji ca jàkka ja su fajaree am ku leen ne loolu baaxul jigéen warta dem ca jàkka di fa julle ji mu ciy laaj nag ak leeral kon loolu lañ ko ci tontu rek ci liñ ci dellu ci sunuy delluwaay ci wàllu woowu muy dan ko naa salaatul mar'ati fi baytiha afdalu min salaatiha fil masjidi li xawli rasuli sallallahu alayhi wa sallam fi zalika wa buyutuhunna xayrun lahunna dañ ne jigéen daal moom mu ne ca këram di jullee ci am néegam julli googu moo gën ci moom muy dem ci jàkka di fa jullee ndax loolu moom la sallallahu alayhi wa sallam wax dana wa buyutuhunna xayrun lahunna waaw ñoom jigéen ñoom soxna yi ñuy nekk ca seeni kër dafa jullee ne ne loolu moo gën waaye nag foofu dañ fi amul déggin muy moo gën la wax waaye terew ko terew ko maanaam jigéen kenn terew ko ne ko bul dem ca jàkka ji ànd ak góor ñi di julli ji déedéet loolu moom gisaguñu fenn ci sulaayam waaye sallallahu alayhi wasallam dafa wax ne jigéen daal bu jullee ca këram maanaam mooy gën ci moom maanaam mooy ëpp yool loolu tax mu ne wala maania min salaatiha fil masjidi li xawli rasuli sallallahu alayhi wa sallam fi dalika ay laa tamnau ima allahi masajidallahi ne nag soxna yi moom kenn terew leen ñu jullee ji ca jàkka ja ndax foofu sallallahu alayhi wa sallam dafa waxan ne jaami yàlla yu jigéen yi daal bu leen leen tere néegi yàlla yi kon loolu moo gën a wér ñu ci luñ gisagun man koo teg loolu muy wax yonente bi muy moom de dane bu leen tere jaami yàlla yu jigéen yi néegi yàlla yi muy jàkka ya te loolu mooy mën nañu faa dem di jullee ji kon ki ne jigéen wërtu dem ca jàkka ja wax dëgg yàlla loolu moom gisaguñu ab teg talam mën nañu dem di jullee ji ci jàkka ja di ko ànd ak góor ña waaye dañ ne bu ñuy jullee ji seeni kër mooy gën waaw kon daan nañ ko dégge noonu kon may nañu soxna yi nag ñu dem ca jàkka ja di julli ji waaye nag dafay am melokaan woo xam ne bu ñuy dem ca jàkka ja noonu la ñu war a mën a mel ñu dog leen a may ñoom soxna yi ñu dem ca jàkka ja nekk ci ginnaaw góor ña di julli mooy dane waman jaat min hunna ilal masjidi wajaba an taatiya mustatiratan muxtajibatan xayra mutabarrijatin wala mutatayibatin wala rafiati li sawta wala mubdiyatan li zinatin lene nag soxna yi buñ dee dem ca jàkka yi dafa julle ji nii lañ war a mel mooy nañu muuru ni leen lislaam sante ñu muure ko seenu yaram te mooy dañoo war a muuru ba soo la leen xoolee doo gis ci ñoom lu du seen ab xar xanam ak seen tengi loxo ne nañu muuru muuraay boobu waaw mooy mustatiratan ma ñu suturlawu muxtajibatan te muuru muuraay bu jot sëkk waaye nag bu ñu fa dem di génn di génnaale seen ab taar boo xam ne bii dañu koy feeñal waaye tamit bu ñu dem di julli ji ca jàkka ja bu ñu xeeñ lat koloñ waaye tam buñ demee ba ca jàkka ja wala fu ñu mënti tollu seen kàddu ya buñ ko fay yëkkati waaye yi tamit nañu góorgóorlu ba buñ fa wone benn taar lenn loo xam ne lu nga xëy na ab taar la rek muy ab rafetaay dal ne ne buñ ko yóbbaale foofee ca jàkka ja bu ñu julli ji kon bépp soxna boo xam ne bii sart yi mu wax mën nga ko bu la neexee mën ngaa dem di julli ji ca jàkka ja mooy nga suturlawu nekk ku suturlawu muuru muuraay bi nga xam ne bii moom la leen islaam sant te bañ a génn génn ab kuy taxawaalu di wane taar waaye itam doo xeeñ nat koloñ doo fa yëkkati sa kàddu doo fa wane ab taar kon day ne na waye juuzu lin nisaa'i an yusallina maa rijaali muqtadiina bil imaami wa yata'axxarna an sufuufi rijaali wa yabta'inna anha ne na may na jigéen ñi ñu julli ànd ak góor ña ñoom góor ñi ak jigéen ñuy roy ca imam ja waaye su boobaa góor ñi nañu ñépp góor ñépp nañu jiitu nekk ca sàppe yu jëkk ya jigéen ñi doog a sos seeni sàppe nekk ca ginnaaw góor ña teyit nañu sori sàppe yi góor ya maanaam bu ñu jege ñi ak ñoom kon daal soxna sostu soxna ay satu jóob daal soxna sum neex sàrt yi ñu la waxal boo ko manee man ngay dem di julli ji ca góor ña te sàmmanteeg moom bu baax a baax li daal mooy li ñu mën a sukkandiku ci ne daal jigéen moom terewuñu ko mu dem ca góor ña di julli ji waaye na mel ni nga xam ne nii noonu lañ ko sant buy dem di julli ji naka jekkit noonu la soxna su nekk war a def moom la war a dëkkee beneen laajam bi moom soxna Satu Jóob ba tey day laaj ne dañ ne nit mënta nekk ci biir këram di roy ca imam ja nga xam ne ji ma ngi ca jàkka ja muy laaj ndax loolu wér na wala déet waaw foofu itam dañ ko naan fala tasixu salaatu fil bayti iqtidaan bil imami fil masjidi loolu moom dañu koy tere maanaam nekk ci sa biir kër dégg ca jàkka ja di mën a dégg kàddu imaam ga fekk ci mën naa am ci rajo nga koy déggee waaye gisoo ko la ne loolu dañ koy tere ndax wóorut rajo yo nga xam ne moo tax ngay dégg imaam ja mën naa taxaw dootoo ko dégg te su boobaa kon yow sëg julli day yàqu loolu li ñu bëgg daal mooy kuy roy ci imaam na nga nekk ci sàppe soo xam ne sii dafa jokk ci imaam ja nga xam ne da ngay dégg imaam ji di ko gis wala boo ko déggutit ngay gis ne ña topp ci imam ja ñu ngi topp ci imam ji nga di leen gis mën a topp ci ñoom ànd ak ñoom julli ga waaye ku ne ci biir këram nga xam ne dégg dong mu lay def su demee ba dégg googu amatut su booba ak jullim day daal di coupé day dagg dootul baax kon loolu tax ñu di ko tere kon daal ku ne ci biir këram dañu koy tere muy tollaleeg imaam ja ne ca jàkka ja di roy ci moom ndax loolu lañ cay bañ boo demee ba déggutoo kàddu ga sa julli kon day daal di yàqu kon ku ne ci kër daal na ber jullik boppam julli ko moom la ko charia sant yeneen laaj yi toppit mu dungum ñing jëwriñu liggéey bi moo koy laaj ñoo ngi koy ziar bu baax a baax xam naa ñaari laaj la waaye dafa mel ni mën nañ ko faram fàcce rek ci boole leen ab tontu muy laajam bu njëkk bi day laaj ma miqdaaru nisaab maanaam alal ji ñu war a génne ay asaka nan la war a tollu ba ñu ci war caa génne asaka waaye tamit muy laaj alal yooyu tam ñaata xeet yi ñaata xeet la maanaam ñaata xeet la mooy loolu ñu ne bu ne alal ji tolloo boroom xam-xam ñu dañ ci am ak wuute léegi muy laaj nag ku ci nekk maanaam luñ ci mën a gën a leeral ci kii ne nangam bu matee bu ko alal ji matee war nañ ci génne asaka keneen wax lu wuuteeg loola keneen wax lu wuuteeg loola lay wax nan la fa demee su ko defee lañ ko jëkk wax dañ ko naan an nisaabu min ad-dahabi xamsa wa thamanuna garaman wa min al-fiddati xamsu mia wa xamsa wa tisuna garamin alal ji nga xam ne ji daal bu ko matee bu ko alal ji matee lim bi nga xam ne bu ko alal ji matee ñu war caa génne asaka mooy bu dee ci or la bu dee or ku am quatre-vingt-cinq grammes or mu am ak yow am at war nga koo xayma cib xaalis lu xaalis ba tollu nga génne asaka ja waaye bu dee ci xaalis bu ñuy peesale itam ku ca am cinq cent quatre-vingt-quinze grammes war nga koo xayma moom itam génne ca asaka su ko defee bu dee ni ci or la daal maanaam feek nit ki amul ci quatre-vingt-cinq grammes asaka du ca war waaye bu dee ci xaalis la itam bu ca amut cinq cent quatre-vingt-quinze grammes asaka waragu ca kon daal ci benn fànn gi muy ñaar yooyu moom foofu la toll bu ko defee dañuy tax ne farrajixu lada jamaatin min al ulamai al muasirina an al nisaaba yuqaddaru bi xiimati nisaabi dahab aw il fiddati wa laytu dahab faqat léegi nag am na boroom xam-xam yu baree bari ci sunu jamono ji dañ ne bu dee ni nisaab la ñuy wax bu dee ni quatre-vingt-cinq grammes or la dañ ko war a génneel asaka bu dee cinq cent quatre-vingt-quinze yi grammes xaalis la moom itam dañ ko mën a war a génneel asakaam waaw ndax nit ki mën naa am or kese su boobaa da koy xam lu war a toll ci xaalis mu génne ko waaye bu dee xaalis la yor muy bu ñuy peese maanaam bu ci amee 695 it da ko war a xayma nan la toll mu génne ko jéem mat na lim bi wax ne mooy nisab bi waaye nag duñu xayma rek ne maanaam ci or bi rek lañu koy xayma bañ a xayma xaalis boo xam ne bi dañ koy peese ngir foofu mu gën a leer ni ko xam boroom xam-xam yi yoxe ñenn ci boroom xam-xam yi maanaam ki am quatre-vingt-cinq grammes or dafa war a xool or lan lañ koy jaayee ci xaalis benn gramme bu ne mu boole loolu ne nangam la ci xaalis daal di cay daal di calculer génneel ko asaka waaye tamit ki nga xam ne kii xaalis lay jaay moom la yor bu ci amee cinq cent quatre-vingt-quinze grammes daa war a laaj garamu xaalis ñaata lay jar ba bu jaayan cinq cent quatre-vingt-quinze grammes yooyu nangam lay doon cib xaalis mu génne ca asaka jox ko ñi nga xam ne ñi ñoo ko yooyo su ko defee ne na alal ji ñu war a génne xaalis asaka daal dañu koy xayma ci or wala ab xaalis waaye duñ koy xayma ci or dong loolu la wax mu ne fan nisaabu yuqaddaru bi xiimati nisaabi dahabi aw il fiddati wa laysa zahabu faqat loolu lay wax ne nag fa ida kaana al mablaxu qad naqasa min thamani nisaabi dahabi aw aqalla min xamsa ay aqalla min xamsa wa samanina garaman walakinahu yabluxu nisaaban bil fiddati ay cinq cent xamsa xamsumia wa xamsa wa tusin fa innahu taju fii zakatu inda xawlaanil xawli ne ne su fekkee ni nit ki li mu yor ci alal li mu yor ci alal bu fekkee ni mënta jënd lu mat quatre-vingt-cinq grammes or waaye yor na ci xaalis loo xam ne li mat na cinq cent quatre-vingt-quinze grammes ne ne da caa war a génne azaka su fekkee ni nekk na ak moom ak am at gis nga ñooñu li ñu wax noonu maanaam dañuy bañ rek nga sukkandiku ci or ji rek te bañ a bàyyi bàyyi xaalis bi ndax du ñëpp a yëngatu ci or ak xaalis di ko boole am na ñoo xam ne ci or rek lañuy yëngu am na ñoo xam ne ci xaalis rek lañuy yëngu su ko defee dañ ne wan nisaabu nag xaaliyan fi Sénégal yu saaw yi deux millions huit cent quarante mille ay may mikunu an yushtara bihi xamsa wa samanuuna garaaman min azahab waaw nee na nag bu dee fii ci Sénégal day am na ñoo xam ne ñoom dañoo tënk ne alal daal lim bii la war a tollool asaka dog caa war lim bii ma bëgg a wax itam muy ca Tuubaa Mbàkke foofa mën nañ faa jëli ay mën naa doon sunu mën naa doon sunu delluwaay ci wàllu woowu ndax ci ñoom la ñuy roy te am na ëru këru asaka gu ñu fa def goo xam ne gi ñoom lañu mujj dégg ci seen fatawaa ñu tontu ko mooy fii ci Sénégal daal maanaam li fi nisaab muy alal ji ni mu war a toll ñu mën cee génne asaka mooy da ngay am lu mën a jënd 85 grammes or bu ko defee xaalis boobu ne nañu léegi mooy nisaab li mu doon noonu te 85 grammes or ñoom biñ ko xaymaa dañ ne maanaam gramme bi li muy jar fi mu ne ni boo ko boolee boo koy doon jaay day nekk ci xaalis 2 millions 840 mille ne ne kon këru asaka kooku yee ca Tuubaa daal ne nañ daal ki nga xam ne kii am na 2 millions. 840 mille nee nañ loolu mooy nisaab maanaam mooy alal ji nga xam ne ji bu ni tolloo nit ki war na ca génne te mooy biñ ko xaymaa dañ ne 85 grammes or fi mu ne nii 2 millions 840 mille moo ko mën a jënd kon ñooñu xeet yi mu doon laaj ci wàllu nisaab benn ngi noonu waaye beneen bi ci tamit fële huna lii ñu ngi ko sukkandiku ci këru asaka yi ca Tuuba ne na itam bu fekkee ni wa inda cheikh Shuaybu Mbakke fi kitaabihi xurratul ayni man kaana ladayhi mi'ata dirhamin xawlan wajaba fiha zakat am na beneen nisaab bu ñu tënk boo xam ne biir fan ca dellu mooy ci téeréb suñ Shuaybu Mbakke bi moom dafa wax ne Sëriñ Shuaybu Mbàkke dafa wax ci téereem bi tudd xoratul ay ni ne képp koo xam ne kii yoon nga ñaar téeméeri dërëm denc ko ren ba déwén ne na loola asaka war na ca kon defe naa bu ñuy xool ñetti xeeti alal yi daal maanaam limab alal yi mooy nisaab mooy xeeti alal yi nga xam ne yi bu na tolloo ñii ne bu dee ci or la asaka war na ca bu dee ci xaalis la asaka war na ci ñeneen ñi wax ne maanaam mooy ñi wax ne deux millions huit cent quarante mille moom la ñu teg waaye am lii ñu jël ba ci téeréb seen choix bi bi mu ne ci ñaar téeméeri dërëm ku ko denc ren ba déwén azaka war na ja kon moom da ko tàmbalee ci ñaari téeméer rek ba nu alal ja tollu kon loolu daal mooy xeet yi nga xam ne ñun moom lañu gisagun mën cee sukkandiku ci ne alal ju toll nii daal ku ko am ba mu am ak yow am at asaka war na ja waaw kon daal xam naa loolu mooy wàllu asaka we ci fiñ ci tolloogun nii xam naa nag dem boroom xam-xam yi moom dañuy werante ci masala yu baree bari nun ñëpp rek nañu gën a def ay gëstu rawatina boroom xam-xam yi ba xool daal man moom ni ma gisee li mu asaka yi ñu wax fii daal xam naa bu fekkee ni bu fekkee ni deux millions huit cent quarante mille rek lañ ne maanaam mooy li nga xam ne moom la nit ki war a am doog a jigéen asaka loolu day mel ni dina xaw a xat ci ñi ko yoyoo lool ndax xam naa moom am na ñu ko am ñu baree bari nag waaye bari na nag ñu ko amut nag ari na ñoo xam ne ñu mën nañoo am xaalis dem ba am ñaari million ak lu tegal sax waaye àgg ci lim bi moom defuñu ko booy xool ñu baree bari lañuy doon waaye itam am na ñu am lu ko ëpp moom kon gis nga ko bu fekkat ni dañu ne xaalis lañu teg moom nga xam ne ni ko suñu choix bu waxee muy ku denc ñaar téeméer ren ba déwén rek asaka war ca muy njàngale mu yaatu moo xam ne mi dalaa wax ne la saa bu xaalis bi tàmbalee doon ñaar téeméer nga mën koo denc ren ba déwén rek ak nu mu toll maanaam rek kon gis nga day daal di ëpp yërmande ci ki nga xam ne kii maanaam moo yooyoo asaka ñu war ko ko jox ndax bu tàmbalee ñaar téeméer moom booy dem ba am ay million nu mu mën a toll rek su boobaa moom day daal di gën a ëpp yërmande ci ñi nga xam ne ñi ñoom la ñu war a joxe asaka ja waaye lim bële day xam naa am nañu ko man de suñ ko génnee tamit dina baax lool ci ñi ko yooyoo waaye tamit bari na ñoo xam ne ñi day mën nañoo dem ba jubal ko am ñaari million nangam yu tegal dara wala million nangam bu boobaa moom kon dañu daal di mën a jàppale kon moom asaka waragu leen waragu leen kon daa xam naa nañu ko xoolaat daal ba luñ ci mën a jàpp loo xam ne lii mooy ëpp yërmaande ci ñi nga xam ne ñi ñoo yooyoo asaka buñ ko génnee mu mën a jàpp ni ci ñoom daal dañu mel ni man moom foofu la sama xel gën a màcce ñoo ngi jéglu bu baax a baax di dellu di seede ñëpp yal na yàlla doole defal tawfiq jay seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam